tey ki nekk ci formation politique représente ko bu ñu demee élection ñu gañ la de par ce qu'ils font dans leur quartier ou dans leur ville di dem dëj di dem njënte di régler ñu seen i problème pour problème amee ñu taxaw il y a des gens qui sont beaucoup plus légitimes qui font part de la politique qui sont des ñoo gën a légitimes que parfois ñi nekk ci dans les formation politiques c'est vrai dafa am dafa am te toll te ñoom pour ñoom gis nañ ne waruñu politique aujourd'hui oui. que Bougane a posé mhm. pour ñu ne ut travaille pour Macky dañ ma ko wax c'est pas parce que je suis là que Bougane non dama bëgg ñuy waxante dëgg aussi am na ku gën a garaaw fuuf jaxase 2017 2018 dem coalition ak Idrissa Seck créé Mburok soow génn fa ñii di waxtaan les quatre grands ñoo dañu bëgg a créer une coalition mu mujjewul sot ñu dem waxtaan nag bokk seen group bi nga xamante ni ne tey mooy yeewi te muy gàkku te duñ ko wax te ñoo ñëpp kenn wëlu ko maa la wax lu ma ni de boo tegoon kaam ñu bëri bu ñu waatee nañ la wax ne gëmuñu wax gàkku et Gakou est là dans une coalition et quand Sonko dans des situations de difficulté il n'envoyait que son compte Bougane sa télévision sa force ses amis tout le monde était là à côté de lui pour le soutenir telle ingratitude booy wax ak nit dangay ngay wax ni diw lii la def lii mooy wane ni kii jarul wóolu boobu laay gëm man mais ñëw taxaw waxal nit loo ma ci ni amoo ci lenn benn preuve bu wane ni kii def na lii. mais mais est-ce di def pareil parce que quand tu parles comme ça de de de aussi est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas la même chose que tu es en train de faire. ma ci nii. oui. c'est-à-dire booy wax dëgg Sonko. tu es avec Macky ci man ci ci actuellement sur la situation politique bi laa ko gis c'est-à-dire Sonko oh, je j'accepte aujourd'hui mon Amath Faye que je sois le Galilée envers ce que Sonko est en train de faire ko toog di ko dénoncer mais demain viendra oui te Doudou yow lay wax de président Doudou mhm. dama ne mhm. tey ni nii ngay wax yenn nit ñi di wax waaye suba day ñëw suba day ñëw mënuma concevoir tey c'est-à-dire nit bu amee benn position nga xam ne position bii d'accord aussi wala baaxul boo ko waxee surtout quand il s'agit de Sonko mais on t'attaque on te dit que tu es avec le pouvoir mais loolu mooy lan mais loolu mooy lan day politique comme ñeneen ñi. d'accord day pose ay actes di def parfois nga rafetlu parfois nga ñaawlu parfois bu defee nga ne lii waroo ko def mais bu ko defee ñu ne lii kii il est avec le pouvoir bu ko defee ñu ne lii loolu mooy lan. Mhm. Bougane am na droit. ñu nekk ci coalition. mu yëngatu taxaw ne jamais de réserve parce que da ngeen da ngeen def dañu mettre en place une coalition XXL. ñëpp ñëw ngeen toog ngeen a yeewu mu ne jamais de réserve. parce que waxuñu woon ne dañu joxe parce que waxuñu woon ne symbole bi li la. symbole ba ka def xam naa ko sama rakk la. c'est un militant de de de de de sama rakk la man. yooyu dara amu si mais day liggéey nag. Mhm. kooku liggéeyam la. di ci daan dooleem mu ci am xaalis. d'accord yàlla noo defal nank rek noo defal nank rek noo defal waaw non non waaw waaw waaw loolu dañ ko dañ ko bokk. mais yooyu dara amul. d'accord xam nga li gën a gën non waaye waaye Serigne Saliou xam nga la moo gën a garaaw. damay laajte rek waaw xam nga xam nga waaw xam nga xam nga tey mënu naa taxaw na Sonko doo attaqué Taïb Ndiaye bi ñu bokkoon ci crédit ak ah, mën naa ko wax mais du lépp la ñuy wax tey mënoon naa taxaw ne Sonko Tahibou Ndiaye avec tous ses biens qu'il a avec le pouvoir ñu xam ko ci réew mi ñu mën ko évaluer mu doon à coup de milliards pourquoi tu n'attaques pas. mais c'est Sonko qui moo tax ma moo tax ma la gis nga àdduna. moo tax ma ne la non ma la réew am compro compromis mais pas compromission. boo déggee ñu naan nañuy def compromis mhm. dafa am tax du lépp. loo xam rek da koy wax. man mi toog autant j'ai des amis. Mm. mais j'ai des amis dans le pouvoir. cela ne veut pas dire que man mes de position wala samay position su ma nekkee ko wax. waa réew mi daal politique léegi boo la mbokkutul position même léegi boo la mbokkee ndey ak baay war a wane ci biir kër gi loolu mooy lan. d'accord wala mënoon nekk xarit fii wala nekk xarit fii loolu mooy lan. alors il faut maintenant que les gens reviennent sur terre. oui. ñu xam ne réew mi. Mm-hmm. du réew fo. du réew caaxaan. d'accord Omar réew bu ñuy toog di bëgg a def di bëgg a def élire un une personne. Mhm. à travers des réseaux sociaux. oui te Doudou nous avons une responsabilité. Mhm. nous tous nous avons des responsabilités. par rapport à ce qui se passe dans ce pays. d'accord bu ñu jëlul ay dispositions par rapport ak li am ñuy téye réseaux sociaux yi ay kilifa diine ay nit ñu baax. ay nit ñoo xamante ni ce qu'ils ont fait dans leur pays. oui chaque jour ñu tey di wax di n'importe quoi sama doom di ko lii sama doom bi am 18 ans di ko gis ne est-ce que lii du dëgg. Mhm. buñ ko réglé wul réew mi doxaw ah. d' accord alors non maa euh, leen di wax lu am solo hmm. Amadou deuxième jour safar laa wax laa toll. te may wax xam naa mag boo seeti wala kilifa boo seeti mënu ma bëggatuma wax ndax lañ may wax si dëkk bi <laughs> te li ngay wax dara amu si nañu xeex loolu. d' accord nañu taxaw mobiliser wu. pour que dëgg bi amoon ci réew mi ñu réew ak lu ñëw mën a nag. nous allons le faire. c'est important Omar euh, xam naa damay jox Amadou laata dellu ci ci président pour fermer un peu euh, euh, cette page dugg ci beneen actualité notamment euh, la Guinée ce qui se passe euh, ce qui en Guinée alors parce que président il faut que mu ñu ngi yàgg dégg ay report de ces élections locales peut-être di nga ñu wax. position wu PDS euh, ndax nañ dem ci ci ci report damay jox Amadou mu nekkoon ci benn point euh, par rapport ak alliance yi mën a am entre ak bien sûr en 2024 waaw coalition mais mais damay rebondir euh, rapidement sur ce que Omar Faye a dit concernant Taïbou Ndiaye et ses avec Ousmane Sonko parenthèse la non c'est-à-dire vous ne pouvez pas transformer vous ne pouvez pas transformer ça en mais ça une idée on a le droit de rebondir ah, aussi mais bon c'est pas c'est pas l'objet du ah, ah, débat waaye non non j'ai dit soyez dans le sujet ça vous faites des non non d'accord ba tey il faut pas que ñu dugg ci détail yooyu mais soyez dans le sujet rek s'il vous plaît s'il vous plaît soyez dans le sujet quoi s'il vous plaît vous faites des hors sujets comme ça mais restez dans le sujet d'accord non parce que Ousmane Sonko moo daan dem ci rédaction yi fii la ñu fekk di yóbbu ay communiqué mais pour faire le sujet loolu c'est pas le thème du jour. am na yeneen yu ñu ci xam loolu laa wax léegi concernant Bougane il a signé sous réserve lii ay parenthèses yu gaaw il l'a soulevé il a signé sous réserve mais dafa yaakaaroon ne ils vont changer ils vont apporter des réformes ci logo yi ci slogan yi et cetera et cetera ils ne l'ont pas fait ils reculent c'est aussi simple que ça. c'est naturel. non non man je comprends sa position très honnêtement. Mm -hmm. très honnêtement je comprends sa position. wane na bëgg na bokk mais ñoom wan nañ ne ko ñun fas yéene wuñ parce que dañ def sax résolution ñoom ne ko réserve yi nga def duñ la ci fekk si mais day toog ca biir malgré le fait que ñee rejeté nañ ay réserve am et ils ont communiqué publiquement ne rejeté nañ ay réserve am mu continuer toog foofu kon bu wootee c'était une suite logique sorti woon gëm sa bopp xëy na gëm gëm sa bopp leneen lay signifier bon bref mm-hmm. sur les partis politiques dama ne après le dialogue je répète les coalitions politiques ont toujours existé et dans la constitution on a toujours parlé de parti de coalition de parti etc mm mais statut bi ñu jox parti politique après le dialogue national ba ñu yóbbu li nga xam ne moom lay point de d'accord ñu yóbbu ko assemblée ñu voté ko mhm. je répète ici désormais les partis politiques ont le même statut que les coalitions de partis man loi boobu gisuma ko maa ko wax je vais demander aux députés du Sénégal. waaw demande-leur. si am ngeen la coalition dama je répète. les coalitions de partis ont le même statut que les partis politiques. non man non attends. non je dis que gisuma ko. Euh, euh, bu fekkee ne je am na député yu ñu déglu te ñu mën a envoyer ah, message. ah non nañu woote. ça serait bien. Euh, si une loi a été déposée. <laughs> concernant le concernant les partis politiques. les coalitions. les partis politiques attends attends man maay wax fi mu nekk nii man ni ma ko waxee. les partis politiques et les collèges ce que je sais mooy ci constitution 2001 la ñu faire apparaître les partis et les coalitions de partis politiques et renvoyé à une loi pour l'organiser cette loi amagul ba léegi Les travaux mmh. qui ont été faits, et principalement par trois d et d'autres moo aboutir ba léegi le président de la République n'a pas voulu répondre à cette question mais mais li waroon pousser président de la mu def ko mu ngi am en 2016 parce que Ablaye dafa yaremoon ci coalition de parti et parti mais Macky Sall dafa wax ne les partis politiques au Sénégal dañu am obligation de formation à la citoyenneté c'est une mission boo xam ne bi mu ngi feeñ en 2016 ci la ñu wax ne que dañu war a participer à la formation à la gestion publique 2016 la ñu ne dañu war a am bénéficier des fonds de l'État 2016 la diggante boobu ak léegi loolu ak l'évaluation des politiques publiques Assemblée nationale tontoogu ci. man de li ngay waxoo ma ko. waaw mais comme am na loi c'est facile am na benn livre bu jaaxate bind. euh, toutes les lois du Sénégal de 1960 à 2020 euh, c'est dommage bu sama benn doom nekkoon ci kër dama koy na ko ubbi wala madame Mbodj boo may déglu nga ubbi ko nga seet ndegam loi boo ngi ci. Oh, moom loi man damay laajte du jeex na. waaw man waaw léegi. waaw d'accord nga ma. d'accord bokkoon ci dialogue bi. mais ci dialogue ñi bokkoon ci dialogue bi waxtaane ko. ba ñu yóbbu ko assemblée. boole non parce que li ñu yóbbu assemblée néew ma la y a une loi spécifique concernant les coalitions politiques loolu de. Ah, lan nga wax. c'est un package lañ yóbbu assemblée. lañ d'accord non defal ndànk rek. lañ d'accord ca dialogue politique dañ ko def package yóbbu ko assemblée. Ah, package élagué li nga xam ne mooy les points de désaccord ci point accord yooyu coalition politique laa wax dafa am léegi même statut que parti politique. sama phrase dafa leer bu subaa nga vaar. Ah, waaw ma ma ne xam nga. d'accord euh, loolu mën naa continuer ci coalition bi ma laajoon. ah ah madame ah. oui allez-y. Ah, je pense que loolu je pense que loolu. parce que Amadou waaye Amadou. nee na Alpha Condé bi soxla lañu de. on va essayer de voir tout ça. on va ah, essayer de. encore encore encore prononcer sur gëm sa bopp. non attends man waxaguma de. s'il vous plaît man defe naa ne aussi. man day def parenthèse mu ngi ñëw ñu ngi ñëwaat ci yow. revient à moi ok. non du ma ci du ma ci wax parce que man gëm naa li nga wax. Euh, weddiwuma ko nanguwuma ko comme dañu naar a indi werante ma wéer ko au moins cent soixante cinq députés yi yàlla nañu gudd fan ñu ngi fi. <laughs> bu ëllëgee ñu tontu. yeeg suba jeex na tey aussi. ñu tàmm honorable Mame Diarra ñuy euh, seetaan xam naa dina ci tontu. ah bien sûr attends mm-hmm. après ñu après ñu war nañu fexe nag léegi comme ñun dañuy werante dara ba daanu kii ne A kiine ne Z seen prochaine émission. Mm-hmm. boo leen duggee en cinq minutes. war ngeen ne wax ne di ñu werante woon daaw de démb. Mhm. ajuma bi paase. lii mhm. tel tel wax la ci nangam. parce que sinon du sotti xam nga lan lay mujjee. oui fii ku nekk ñëw wax li la neex ba géex dem. d'accord parce que am na ay problème yu fi am nii boo xam ne bu ñu xasee boo ko pare dépassé ko. Mhm. mu ne man maa ko fekke dem naa ci ngénte lii doom ji maa ko jur maa ko ngénte maa ko tudd Ibrahima lu tudd kenn na Ablaye dafay metti <laughs> dafay metti ce qui se passe ici dafay metti. très bien dafay dafay sax dégg. alors sur les coalitions ensuite Mm-hmm. les coalitions politique wax naa la li ci nekk xam nga. dafa am benn dafa am benn avancée. Mm-hmm. qu'il faut saluer en 2016. Mm-hmm. je pense que Serigne Saliou yaa ngi may dégg yow. 2016 dafa am benn avancé importante sur les missions de l'Assemblée et sur les partis politiques li ci desoon mooy loi bi teg ñu tegu ko parce que loi boobu ñu koy liggéey xam naa ci liggéey naa ci. fay nañ ma ci. ngoon demoon xam naa ko mais ñëwagul assemblée. lu amoon daanaan nga si alors waaw xam nga 2024 li ko indi. mooy Serigne Saliou dafa ne. il ne serait pas étonné bon on lui concède ça quand même ku ci nekk am nga droit. wax sa analyse ak sa gis-gis. Mm-hmm. Mm-hmm. na nga ko na nga ko na ko gisee. nee na il ne serait pas étonné que d'ici les élections locales PDS mën a def une collusion ak. APR wala Benno Bokk Yaakaar. collision la ma ne ko mënul nekk. collision mooy mbëkkante ah. non mooy mooy com complicité. waaw ba tey. collision mooy mbëkkante. voilà avec I avec U c'est la complicité dama ne loolu mu wax dama ne mënul nekk avant les élections locales. d'accord président tontu na ci aussi. Ah, oui d'accord naa ci. waaw ci. li mën a nekk mooy dans la perspective de la présidentielle de deux mille vingt-quatre diggante boobu ñu dem 2024 wala après 2024 loolu la ñuy xool parce que li ma lay wax ni mun lu tax mënul nekk mhm. avant les locales